waaw tey dañoo ñëw euh, fii si euh, euh, si booru suñu suñu mbokk suñu kilifa monseigneur Benjamin Ndiaye koo xamante ne kenn la su ñun ñu ñëw pour waxtaan ak Mom moom mook évêque Sénégal yi waxtaan ak ñoom si loo xamante ne d'ailleurs kenn du leen ko jàngal parce que première vague bu mu njëkkee ñëw ñoom dañoo taxaw très tôt lancer benn message wax ak réew

favorable pour que population yi mën a gis seen bopp ci système de santé Sénégal à travers ñun suñu action directement mais aussi à travers ñoom seen action xanaa di rafetlu tànku ministre bi bu jël temps ñëw ba ci ñun au Sénégal ndaa ñu waxtaan ci mbas mi mbas mi nag dafa doon loo xam ne réalité la ci ñun ñëpp ñu ban ci sàggane ku nekk ci ñun gën a góorgóorlu ndaa ñu xeex ko xeex ko nag dafa jaar ci jikko yu rafet ndaa ma aar sama moom sam sama bopp aar sama morom loolu dafa am solo lool te fu ñu tollu gis nañu ne mbas mi gën na garaaw di dem di jur loo xam ne ne mu ngi jaaxle kon nag maa ngi encouragé population yi yépp ñu gën a takku ndax ñu xëy mbas mi